daan ñu leen dégg donc ñun dañ leen war a góorgóorlu gis nga kilifa kenn du ko caaxaan su la yàlla jëlee te gënoon nit ñi gënoo leen ëpp xam-xam yàlla rek moo décidé ne man maa lay jox li su la ko joxee da ngay góorgóorlu toppatoo ñii ñu la dénk parce que seen njaboot lañu liñ la jox pour que mu jëm ci ñoom soo ko yokkul bu ko wàcc ku ci ne da ngay xalaat ne lii may jox soldaar yi su fekkoon ni jox nañ ko samay doom est-ce que dina ma dina ma neex nga ni waaw nga ni akoon ah, baax mais su fekkee ni yow suñ la lii ngay jox soldaar yi suñ ko joxoon sa njaboot du la neex waroo ko jox soldaar yi sa njaboot lañ c'est très important te ku toppatoo njaboot gi la yàlla dénk yàlla dina la topp ñëpp la nag du man rek caporal ay soldat lañ ko dénk su leen toppatoo yàlla toppatoo sergent ay caporaux lañ ko dénk ak ay soldats su leen toppatoo yàlla topoto. commandant bi dañ ko dénk ay capitaine lieutenant ay adjudant adjudant chef su leen toppatoo yàlla toppatoo adduna c'est pas compliqué c'est comme ça que ça se passe le général là aussi su topoto armée bi ñu ko dénk yàlla da koy toppatoo mais su ko toppatoowul yàlla seetaan ko donc ku neen na def li ko war a def ku neen na toppatoo li ñu war a toppatoo nit suñu nee da ngaa jiitu da ngay fàtte sa bopp jiite mooy yow bokkatoo ñi nga jiitu ñi nga jiite ñooñu ngay toppatoo yow yàlla moo lay toppatoo mais soo jiitoo ba pare bëgg yow sa bopp rek ngay toppatoo loolu baaxul soo jiitoo da ñi nga xam ñoom lañ la dénk ñu ngi ci jàmm ndax ñu ngi lekk bu baax ndax suñu feebaree ñu leen di faj ndax suñu amee seen kër kan moo loolu mooy jiite ok loolu lañ ñu jàngal dañ ko appliqué voilà bonne journée Até a próxima.